comme ñoo ngi ñëw fii si nga xam mooy jumaa ji fekk fii nag euh, soxna yu euh, brave yi maanaam tamit di nettoyer li nga xam ne tey jii moom mooy jumaa ji di waaja li nga xam moom mooy mawludu nabi bi nga xam ne si ñu jëm euh, si le 19 incha allahu rabbi si guddi fii si Tivaouane ñu ànd ak nag sunu papa ji nga xam ni délégué de quartier la tamit en même temps dañ koy bàyyi rek mu présenté wu wax turam waaye wax tamit li nga xam ni ñoom la àndal. lan moo doon seen tànk fii si jumaa ji. waaw asalaamaaleykum yéen waa. FKR 92 FKR 92. fondation Karasoul fondation Karasoul. alhamdulilah seen rek dal na xel. jërëjëf kooku daje naa ko euh, borom borom borom borom borom gàmmo gi. Hmm. wax dëgg tabarakallah loolu doy na sëkk sant yàlla. ah ñun nag suñu wax daanaka mën na cee bañ bari sax ndax moom ñun ñëpp lu baax rek moo ñu tax a jóg ak moo ñu tax a jóg ba léegi kon nag ñoo leen di sant loolu di leen gërëm mboolem seen directeur ak ñi ci ñëpp ak personnel ba fa nekk yëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan yàlla yàlla leen barke amiin yàlla leen di nag mooy nun ñi nga xam ne noonu nag man délégué de quartier laa danoo bokk ci quartier yi fekk mhm. euh, bari ay euh, ay yoo mhm. bari ay manit ak xam naa bari sax moom duñu ko jàmbat ndax nun noo war a bale mhm. waaye nag yooyu moom lu ñu si mën dimbil daal wax dëgg yàlla moom dañuy sant yàlla bu baax euh, pompe pompel leen pompe waaw pompe yi pompe yi ñu ngi nuy wër rek mhm. waaye toujours dañuy yem ci kii rek bañ a agsi ci noonu mhm. te man dox naa ci guddi fu ma dem ñu ne ma bu suba ñëw nangam boobu léegi ñëwaguñu mhm. te gàmb gi day mujj bu dëkk bi day xat ba dañu mën a agsi ñu dëkk nag ku nu dimbali ngir yàlla joxandu ñaari oh, kii ñaari pompe ñu wër quartier ba quartier suñu baaba quartier deux lañu koy wax ñu ngi ci boo boo weesoo xalxul jëm jëm jëm midin midin diggante lansaar ak quartier sëñ Babacar Sy 1 ndax quartier sëñ Babacar Sy 1 la ak sëñ Babacar Sy 2 waaye 1 ak 2 daal bu see gisaguñu daal pompe ba dara te soxlawoon nañ ko lool ndax pompe rek ngeen ngeen ngeen ngeen soxla euh, bu ñu nee gàmm wax mbooloo bu ñu waxee mbooloo euh, wax set waaye set mën ñu ko wax te waxuñu ndox ndax ndox mi tamit euh, yemb na foofu ndox mi de moom it yembul ndax am na ndax xam nga Tivaouane day yokk hmm. léegi boo demee am na dal yoo xam ne ña nga ci sunu gannaaw dal dal def ay néeg dugg seen i kii te amaguñu robinet hmm. ndax teew yi ak seegul ci ñoom hmm. faaw ndox dafay war a ñëw te boo waxee oto ndox ñu ne foofu mënu faa agsi nangam nangam gàmm gi daal di déborder dootuñu dootuñu la sax tal waaye man damay ci dox saa su nekk defo defoon naa demande ay ay ay point d'eau pour ci koñ ñu di ko bi ñu ne ma amul problème daañu ko def ba léegi ba léegi léegi dara lamp yitam itam foofu foofu ba bayti ci quartier bi bokk ba bayti te ni ñi ñëpp dañu euh, euh, euh, parcelles yi léegi dem na ba bayti xataloo nañu léegi nit ñi dëkkee nañu ko te diggante bi dafa lëndëm xam naa mun noo wax ñax mi moom ndax ndax mi moom fil na ko fekk te nawet la nawet la waaye nag kon suñu sañoon moom mu leer rek mu leer ndox it luñ ci mën a am ci oto ndox wala point d'eau bindoo naa ko mm-hmm. point boobu bind naa ko ba déposé ko mais ba léegi gisagu ma dara. Mhm. lamp yi lekk déclaré naa ko ba léegi gisagu ma dara. Mhm. ah léegi nag man loolu lépp taxul daal man ma découragé benn yoon ndax ñi ma àndal tabarkalla waxtaan naa ci ak ñoom. Mhm. wax leen nan def ndànk-ndànk rek yàlla yàlla yaakaar naa la nekk ca biir dëkk ba ca jumaa ju mag la fa dalee ba fii. benn rek la. te bu ñëpp dee soxla. moom loo loo am rek na na te ñëpp a soxla. bu ma la déggee nga ne ñi ñi nga àndal mooy yeneen délégué de quartier yi. ma àndal nag waaw déedéet ñi ma àndal mooy. Ah, mooy sama jigéen ñi nga. sa jigéen ñi nga àndal ñoo pour nettoyer si. si koñ uh-huh. xam ne ñoom dafa groupement lañu. ñun ñi sax xam naa tàngaay bi. tàngaay yàlla mobiliser nii. ñoo a rocc ko waaye waaye bari uh-huh. uh-huh. di gërëm di leen sant ndax foo fa ma jóge ak fii sore sore na waaye saa bu ma leen nee soxla nañu nangam ñu daal di jóg amul ko du amul ko ñoom dañuy daal di jóg ñëw nañ sax xam naa tàngaay bee tax ñu xaw a saali daw rek waaye ñu ngi woon ñoom ñëpp ñan nga looy looy wax ñi nga xam ñoom ñooy gàmmu ci waaw ñi nga xam ne mooy gàmmu ci moom nañ ñëw ci jàmm rek fekk na ci jàmm mhm. ñu ñëw nu teeru leen ci jàmm incha allah danañu ubbi suñu néeg danañu ubbi suñu xar kanam danañu jéem it leen man waaw su ko defee lépp loolu man ba ba ñuy dem daal incha allah noo ngi ci taxaw leen ñaan yàlla ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yàlla nangul nu nangul ji yëpp nangul mboolem kuy gàmmu ko ak foo ma nekk rek yàlla nangul la amiin yàlla yàlla na ko yàlla defal amiin jërëjëf ñoo ngi sant nag ma groupement bii ma àndal daal mo maa ngi ndax fa ma jógee ak fii soree na mhm. te saa bu ma leen nee soxla nañu barab sàngam mhm. ñu daal di jóg ànd ak man mhm. kooku nag wax dëgg yàlla su ma sañoon bu ñëwee ñoom itam léeg-léeg ay ñëw fekk na ko xam ne ñu ñëwoon kat ñii ñu defal leen dara suñu sañoon dun nag dun ne nag dara la nu gi ndax waaye nag xam nga ko ko quartier bu sori daal moom day am lu mu bëgg mm-hmm. waaw bëgg na koy ko dafa dem di ko seeti wàllu làmp wàllu ndox mm-hmm. ah, ak yeneen ak yeneen daal lu mën a am jërëjëf papa noo ngi sant bu baax a baax nag di gërëm jërëjëf ñaan yàlla may na ko am jàmm ko seeti guy yàlla